asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu baax a baax di leen kontaane yéen ñi topp ci Leewtoo TV biir réew ak bitim réew di am mbégte ak contentement di janoog yéen chaque jour noonu laay def rek daal di nuyu Assane Wàllu ma feggul daal di ñëw jukkil leen di gën a fas ci xibaaru làmb Assane leen nuyu naa ngi lay fay lay Mbacke di nuyu internet Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen di gën a fës ci yenn kay ci noonu dañ ci ànd suñu partenaire ah ku ci mel ni Urgidor di ko béggee bu baax a baax waaw ooy Kayar kenn du moom ndox bu set sell gën ci xale gën ci mag Assane ndox ah. sport <laughs> noonu laa defee de saraax ci journal suñu làmb ba mu xëyee ci xatam mu njëkk nag Mbaye Guèye Double 45 ans après loolu leur combat Vedrima la ñuy xaar ba léegi. dëgg la Ndeye Mbacke loolu la suñu làmb wax nee ne bi ñu bëree ci seen deuxième combat boobu léegi ba tey am na 45 ans ba léegi verdict bi la ñuy xaar mais nag suñu làmb dox na ci jox na ci kàddu euh, waa làmb pour ñu réagir si. Mbaye Gueye amaa muy génn àdduna moom li mu waxoon ci combat boobu mooy que nee ne du tegoon na ñaari zone ak mbagam ci suuf. looloo taxoon mu yaakaar ne am na victoire euh, li ko Double Less tontu mooy que nee na Mbaye jour boobu dafa sàqi jox na ci également kàddu kiiti Nganjaan Nganjaan nee na moom euh, combat boobu du leer jusqu'à la fin du monde du mos a leer ndax lëndëm na ba pare Ipongaari moom nee na bi ñu bëree ba ca lendemain ba euh, Double Less nangu woon na ne euh, Mbaye Gueye daane na ko man dégg naa ci Bécaye mhm. mu ne après combat bi euh, Double Less nangu woon ne daan na mais benn journaliste bu tuddoon Naar Samb su ma jumul ci tur bi mhm. moom moo ne ko bul wax dara bàyyi noonu mais en tout cas daal 45 ans après parce que combat mi ngi amoon le 12 décembre 1977. Mhm. ba léegi kenn xamul kenn xamul fan la mujj te duñ ko xamee nag ci noonu nag. cent 152 combats ëppatalaw 150 victoires 2 défaites. kooku mooy Falak Falak voilà Abdourahmane Ndiaye Falak moom moo def loolu am na 152 combats la disputé durant carrière am daana ci. cent cinquante victoire ñaari défaite kese la ci am loolu loolu ëpp na. day baax moo dul am instant palmarès boobu loolu waaw loolu jafe na ci am. Ah. ñu fàttali ne Abdoulaye kii Abdourahmane Ndiaye Falang boobu mu ngi judd en 1912 mu ngi génn àdduna euh, au mois de juillet 2005 à lage de 93 ans moom nag nekkoon euh, lim gën a li ko gën a euh, cachet bi gën a ndaw bi mu am ci làmb mooy 150 francs. moom moo moom mu gën ne cachet bu gën ndaw bu mu jot ci la 150 150 francs CFA mooy fanweeri dërëm voilà loolu moo gën ndaw <laughs> cachet bu gën a mag rek mooy 200000 200000 boobu mi ngi ko fayee woon mu ngi ko fayeeku woon contre bi mu doon ñu bëri ak Talla Diagne buy off nee na euh, année boobu la encaissé 200000 ci cachet bu gën a mag ci carrière am ca noonu nag kii di Babacar Thioune décédé samedi dernier moom moom moom nag moo nekkoon président commission d' organisation bu CNG depuis 1994. oui ni nga ko waxee Ndeye Mbacke noonu la Babacar Thioune Thioune na moom moo génn àdduna samedi bi passé Babacar Thioune nag. ñi nga xam ni topp lamb waroon ko mën a xam mais à chaque fois moom moo doon nekk ci biir enceinte bi ak mbër yi moom moo doon xool wàllu dagg yi est-ce que mbër yi dépassé nañ temps yi ñu def ci kii bi parce que benn mbër tooñ na moroomam ci loolu lépp moo ko doon gérer ci biir enceinte bi moom nag moo génn àdduna samedi bi passé journal suñu lamb ne ne denc nañ ko foofu ci armee bi Yoff démb ci dimanche bi muy noonu di ko jaalee axlu lamb yëpp ah, di ñaan yàlla suuf sedd ci kawam yàlla yërëmu te xare ko aljana te noonu côté Japon depuis France moom la muy xam ne journal nee kii di Modou Lo roi des arènes borom xarañ loo daa bëgg mu ñëw intégré li nga xam ne mooy MMA. exactement coach Diamant ñu xam ko moom expert la ci wàllu sport combat. moom nag nee na xool na Modou Lo waaye li mu gis daal mooy que moduloo am na ay aptitude yu graaw wala yu bëri yoo xam ne nii mën na ko exploité ci biir MMA ndax nee na Modou Lo il est un athlète complet benn athlète bu complet da mën na bëri mën na xeex également. mu ne mën na utiliser tànkam te yooyu yëpp ay ay point fort la yoo xam ne nii bu ñëwoon ci bi mën na ko exploité te ko ci foofu moom mu nekk fa benn champion bu mag a mag ci biir MMA. ci loolu nag journal record lañ jëm record nag la muy xam ne journée de vaccination du CNG à l'arène nationale pourquoi les ténors n'ont pas répondu présent ñoom nag ba léegi loolu la record daf ci séq ak benn ténor waxtaan ceeg moom ci loolu euh, kooku li mu xamle dafa nëbb turam ne kooku li mu xam na nee ne li tax ténor yi ñëw li benn point boo xam ne nii loo tax euh, ténor yi ñëwul euh, si jour vaccination mooy que ñoom. dañu gis ne CNG bi dafa def une mauvaise communication ndax nee na yi au lieu que CNG bi jël téléphone am woo leen daf leen doon yóbbante euh, information boobu waxal ma diw mu wax mu wax mu ñëw ci jour boobu te nee na loolu jox boobu rafetul trop waroon na waa CNG waroon na yëkkati seen téléphone woo ténor yi wax leen informe leen euh, jour vaccination yi expliquer leen nan lay demee pour que ñoom le jour si ñu mën a ñëw mais comme deful loolu ñoom it dañoo préféré ñoom toog seen côté. bañ a ñëw ci ñoom bañ bañ tudd seen tur. exact. te doon nag MMA lañ jëm défaite par KO contre ki nga xam ne mooy Gris Sénko Reug Reug les. deux règlement yi nga xam ne mën nañu annuler defetam boobu noonu mu amoon. exactement xam nga euh, Reug Reug dafa demoon ci MMA bi ñu kaawa ko loolu mu ngi woon xewoon le 29 sumb avril. bële passé euh, moom ak Girisenko ñoom ñoo doon euh, combattre Girisenko Girisenko voilà kaawa ko. léegi nag MMA dafa am 26 règlement 26 règlement réglement dafa am ñaar yoo xam ne ni buñ ko toppee day annuler automatiquement combat Reug boobu ndax ñaar yooyu moom mooy que day bañ nga attaqué sa adversaire bu sonnerie bi retentiré euh, parce que round bu jeexee bu sonnerie bi euh, xasee ba jib rek euh, am benn adversaire amul droit di dóor beneen adversaire bi loolu premier règlement bi la deuxième bi bi annulé waat combat bi mooy que amoo droit nga dóor sa adversaire ci ci dox bi te ñaar yooyu yëpp dañu gis ne Gris Sonko def na ko le jour yi euh, dóor na Reug Reug instant bi euh, kii bi euh, Sonoré bi jàll en plus da ko dóor ci gor bi donc ñaar yooyu yëpp ñaar règlement yooyu bu ñu ko jàppee mën na ne combat Reug Reug boobu normal na ñu annulé ko kon Reug Reug naa am chance ne Reug Reug maanaam zéro défaite la am ci MMA bu loolu jàllee ca loolu nag lutte question bi ne nii mooy visa est moo gën na ratal nag nga xam mooy Boy Niang ak Ama Baldé exactement moo gën temps yi dafay tëgg combat MMA foofu ci États-Unis day def mbër yi nga xam ne am nañ visa États-Unis wala mbër yi fa nekk mu tëggal leen combat ñu eh, ñu bëri MMA nee na nag doon na dox combat euh, Boy Niang ak Ama Baldé pas que pour ñoom ñu bëri mais bu ñu demee mu boole leen peut-être ak yeneen adversaire mais lu tax ñu combat yooyu mënul sotti mujjul sotti nee na Boy Niang ak Ama Baldé seen visa dafa jeex moo tax mënuñu dem États-Unis ba tax na seen euh, loolu ñu mébétoon mu mébétoon mu jël ant voilà mu ngi noonu nag loolu moo gën a fas si gën ci bu baax a baax moo nekkoon li a fas si xibaaru làmb di sant bu baax suñu ki nga xamante ne moo jàpp ci émission ba yemba di Bilal Ndiaye dama koy kontaane bu baax di kontaan ci équipe léegi di Leewtoo TV yëpp jaajëfal Assane ma féegaloon jox ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen